président union européenne ñëw seet si ko bés boobu maa ngi woon pare ñoo ko fa tertu waaye bi mu ñëwee liñ ko njëkk wax mooy accord de pêche yi mënatuñu koo nangu Sénégal faw rek ñu xoolaat ko ndax suñuy nappkat dañoo am droit war a mën a jot ci bi balaa keneen di ci jot te nag wax leen lenn lépp lu ngeen mos a bu soobee yàlla dinañ ko def ñii nga xam ne ñoo ne ci opposition bi buñ ñu dañ leen essayé découragé ne leen gars yi ñoo fi diggewoon lii waaye defuñu ko juróom benn weer mënoon ci rek ne lépp waaye teg nañ ci ay jéego yoo xam ne yéen gis ngeen ko ci jub ci jubal ak ci jubbanti réew nag li jiitu ci defar réew mooy jub jubal ak jubbanti bu ñàkkee ci réew leneen loo def du sotti Defon men li bati maboy tomak rek. Bu fondasyon li bahu. Daga yi sot norek. Wan yi lotek mou mabou. Fondasyon wak mwen yi djoub. Djoub el ak djoub bonti. Kon. Danyou lek chit kou narek deyak. Kou baken chen. Len norek kou korek nan tiri ou. Mwen yi milyar yi. Om politik yi di saj. Kou korek nan ou. Mwen mwen gen yi si askan mou rek. Defon aprele mou boli kou narek nan ou. Mou atak ou. la ñu bëgg yéen waa Joal nañu mottali mbir mi buñ ko defee ci juróomi at yi di des wala ñeenti at ak genn wàll yéenay gisal seen bopp kenn leen nettali rawatina ndaw ñi waaye nag dafa am lu ñuy fàtte daan ko wax campagne bu nekk tekkiwul ni tey joor nguur gi dañ koy fàtte mooy dem leen jëli carte yi ndax am na carte yu des ci bureau ci lieu yi dem vient de dire carte parce que élection bi une élection confirmation sax nous avons avons duma duma avons élection locale avons une élection législative euh, avons une élection présidentielle une élection bi solo bi duma ba dem ci télé yi di wax li ñuy wax teg ko ci ñàkk teggin ak xaste ak saaga moo tax élection bi buñ ci jógee ñoom ñëpp dañoo war dem di takk seeni bagage xam ne amatuñu place ci politique Sénégal te loolu li koy maye mooy ñu ne assemblée nationale bi cent soixante cinq député la gën saa gàtt cent cinquante député yi liste Pastef yóbbu na ko loolu bokk na ci li koy firndeel kon du ñu guddal ci wax ji dañoo war a continuer dem ba Fatick daaw ga Mbour dem defi meeting ba waaye kontaan nañ ci derte bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen euh, jox dig daje ci fan yoo xam ne du sori parce que am nañu yéene en tant que premier ministre gox gu ne ñu dem fa nemmeeku waa gox bi présenté leen li nga xam ne moom la a def ci gox bi. parce que ñu ngi koy def ci échelle départementale ak échelle régionale baax na ñu def ko ci échelle locale tamit mooy échelle communal kon ñu ngi leen di gërëm leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullah